jërë ngeen jëf compagnie sucrière sénégalaise di Jean-Claude Mimran mi bënnooni bëtam doon jooy ak jéebaane jafe-jafe yu muy dund ci ndefarum suukar si ci Sénégal moom Mimran borom suukar si waa UNACOIS jàppoo xëy nañu ko xorom lu saf-sàpp yëral xët mu njëkku Les Échos waa UNACOIS jàppoo jàpp nañu ne Mimran ak dépas yi muy sàkk ñu dakkal ko intérêt boppam a ko tax di wax ñu ne li mu bëgg bu sottee moom Mimran moom rek kay importé ci réew mi ñu ko dara li ñu yéenekaali tey nguur gi fi nekk dafa jëli responsabilité waa UNACOIS waa jàppoone bu ñu libéraliser woon marché suukar bi kon kilo suukar bi mën naa wàññeeku ci réew mi bay jër téeméer bu manki ñaar fukk vice président bu UNACOIS waa di Moustapha Lo mi ngi ba tey ci xët mu njëkku libération ba di fa xam le Jean-Claude Mimran ku ko seetaan mu jël pépp jël péfét li mu bëgg mooy di importer suukar moom rek di defar suukar moom rek di distribuer suukar si moom rek lu jën njaaga total rek mooy njaag journal lay fa la ñu joxar bi baaramu tuuma ci ñàkkum gaz gi am di fa leeral ne gaz bi mi ngi ñëw normalement stock yi doy nañu amuñu benn problème ci sensé gaz yi dëgg gi mooy total moo saboté marché bi te gaañi amuñu fulla ak matuk taxaw wax ko dëgg Boubacar Seye bu Unagaz nañu ci xët mu njëkk journal lay fo état bi moo war a forcer total obligé ko mu jël ay xotti gazam dem sarse ji ko journal La Tribune bi nañu gaz bu ñàkk bi ngeen yëg waaye ko waxit ba am gaz ndawal goo ciy teg togg ko moo la na rëta gaa ngi yokki dem yàpp kilo bi mi ngi léegi ci junni bu manqué téeméer yàpp nag wi kilo bi 3800 lay jar direct news nañu mu tàmbalee ci réew mi mi miti na consommateurs yi ñoom ñëpp lof ndax njëgu dund gu seer ceeb bi suukar si diw gi ndawal gi yëpp a yokk gaz bi ko war a tàngal kenn mënu koo am fenn journal bés bi le jour nañu ministre bi ñu dénk pétrole ak énergie di Sophie Gladima fëgg na ci taabal ji wax ak distributeurs yi yi lu mën a dégg nee leen nañu sàkk saafara ci situation gaz bi nu mu gën a gaawee ba askan yu mën di amaat gaz nañu ko daan amee am na leneen lu xew ubbi a a jeexagul tàkk moo waral kilifa yu Arabie saoudite yi jël dogalub wàññi quota bi ñu doon maye ngir bañ nit ñi di dajaloo ca Makka wàññi nañu ci ba ci coow li nag Le Quotidien nee nañu moo di fii ci Sénégal muy délégation générale au pèlerinage di voyagistes privés yi kenn ci ñoom amagul lu leer ci aji Makka gi ñu aji L'Observateur ajog moom layo ba ñuy amal boobe ba léegi ci tribunal grande instance bu Ziguinchor mu jëm ci la xewoon ci àll ba fa ba L'Observateur nee nañu faso ngiru dund mom la parquet bi di sakku ci ñuy tuumaal ci la xewon ci Bofa Bayor yi xewon dembu ci ndajam conseil des ministres la Sénégal am lu mu ci baxé mi ngi ñuy xamal leen jitu réew mi Macky Sall jox na gouvernement bi ay directive ngir ñu gëna a taxaw jeunes yi las jangé ci ne Macky Sall mi ngi charmer jeunesse bi le témoigne ne ko ngir ñul bopam nak Macky ma nga bu baaxa baax ci programme yu muy tek ngir di Père ndjay manam charmer jeunesse bi jamono ji jamono jaxaso wala adunaay bëgg tukki yëral xët mu ñëk Source A ben militaire di ab commando de l'air bu bokku ci force spéciale du sénégalais mo and ak benen beneen xaritu militaire am ñu demoon cambriolé ji benn point transfert d'argent ca Nord Foire l'observateur nañu moom militaire bi def loolu moom ak frère d'armam bi ko ci doon jàppale démb ci lañ leen doon atte ca tribunalum Dakar ab point orange money la ñu attaqué ji woon ca Nord Foire li ko ci dugal moo di dafa am doom amul lu ko ngénte